ñaari samboy ma ñu war dee taxaw mais mais mais Julien si ñaari xale yi toll nii i ko yoon la Julien ci war a bëre Julien si ñaari xale yi toll nii non non non mais di yoon mais xam naa xëy na xëy na xëy na ñoom sama seen côté mais moom man ma leen sama lu yàqu làmb non non day yàqu làmb daa mel nii dafa a ñaari mbër ñëw ku njëkk a door ku njëkk a a door ah Caatu Yoff moo njëkk a dóor moo njëkk a dóor Caatu Yoff lépp la kay ni ñëwal ni ñu ko xamul dara même ko amul bir wi do daan bir wi waa dégg ko kii moo moom laa bëgg ñaara bir wi ngeen ko lan bir wi bir wi mais Jacob mais Jacob lan la sa yaram daa tàng wala mais rax ji sa yaram daa tàng wala ah. sa yaram daa tàng wala mais rax mais rax sa yaram daa tàng wala mais Jacob mais mais mais mais tay gis nañu gis nañu tay tànk mais mais mais Sakho Sakho Sakho bruit bi lan la bruit bi lan la ah Sakho Sakho mais am sa waay da am Rakam moo ngi rek buri bi lan la état bi la wala buri bi lan la ma jël ah ma ne ko buri bi lan la moo ma jaaxal ko tey daay naa la buri bi lan la ko yaay reer rek buri bi lan la cawli cawli ay sago bal de cawli cawli ay caatu yow cawli cawli la wàcc mais lan la ah yow coow li bari bari yëpp yaa ngi ree reetaan gi lan la confiance bee bari wala toolu maam combat jàng la ah sa waaw coow li bari bari yëpp ñu waay waay waay waay waay jaati yof waay na wàcc waaw wayu la buri na buri waaw nee na bëriwul dunya laa ilaa kañ lay bëre kañ lay bëre. kañ lay bëre. Julien daa sori xanaa. mais sa diggante ak Sakho Polé lan la jàpp kii du contre passe. mënul contre passe. lii sunu toolu moom la day ñëw toog réglé rek. waaw day ñëw rek réglé. waaw réglé rek est-ce que xam nga ne ah moom rek lay def. moom moo ma njëkk a jox sunu. dama kaa animé leen ma wanteer. muy borom baax barke alxuraan moom Cheikh Mbacke. tey Cheikh Fall. ayca Diana foo ne. Diana day réglé maa ngi nii toog. ah. maa ngi sànni ko gën a jàppale gën a jàppale rek. sa kopp rek bi pig na li topp. ah Pikine leen la ñuy topp à part Pikine amateur lan mais moom Pikine la ñuy topp. ah gis nga nee mu toogee. ah nee mu toogee day yaru rek. yéen a bokk rangé non mais fii suñu toolu maanaam rek la rek lay def. mais mais lii dafa bokk ci luy dekkal lamb. waaw dëgg la dëgg la waaw. ndax lamb tey bu neexee dëkkante mooy neexal lamb. dëgg la dëgg la dëgg la ndax boo ko naan boo ko naan lii si yàqu looy si yàqu. ñaar ko ñu koy seen lamb mais ñaar xale yi ñu ngi jaay lamb. wax nga dëgg waaw lamb daa soxla lii. mbëri il faut ñuy dëggante ku nekk xam rek ndax lii mooy sarmu làmb ndax amateur daa bëri parce que am na ñoo xam ne woy moo leen indi ñii tuus moo leen indi ñii bëri moo leen indi am ñoo xam ne dëggante moo leen indi làmb daa bëri ay sarmu ci nekk daal yàlla na seen jàmm yaakaar na ma ah, waaw Acabou aí, down, down, down, down. waaw kontaan rek. jaajëf. daa daa daa mel ni daa mel ni dafa du ko si amateur yi. waaw d'accord nga ñëw amateur yi dina may xaalis kontaan si yow. sant leen rek. lii si mbër lii si mbër. waaw mooy loolu. daa mel ni yaram dafa tàng. mooy loolu. taw feeg. jaajëf mooy loolu nice. amateur. teg nañ la ko de. waaw waaw waaw. 25 minutes.